si maire nag. waaw maire plutôt maa ngi maa ngi maa ngi juum maa ngi tuub <laughs> xel day fatu. bu wax adjoint te yaa njëkk a nekk imam. adjoint waaw imam maire adjoint donc loolu dafa dafa am solo. alors ci li ñuy wax ci wàllu passation des marché te yaa ngi woon même bu dee de manière éphémère fële ville de Dakar yoroon lépp lu aju ci wàllu euh, religieux diine. exactement ci ville bu Dakar. effectivement ak le maire Barthélémy Diaz. Euh, ci li ñuy wax souvent dugal fii papier yu wérut ah, am ñoo xam te ne derrière yi booy dégg de fois ci rëcc maire yi wala boog ñuy gis ni am na c'est comme si dafa am benn lobby bi nekk derrière yoo xam ne maire boo dem ña nga fa. seen liggéey mooy fexe ba nu ñuy lijbatee kayit yi di am signature maire bi fii wala di dox fii wala xam daal circuit fa muy jaar ngir tëgg wëndeel. Mhm. lu mel noonu lan moo waral par exemple ci mairie yi duñ def toilettage bi war ngir mën a tàggat ñoom wala dañuy nekk en complicité ak mairie yi seen bopp pour mun di réussir yi ñuy wax ni ñu ngi masawu di ñaanal ñi génn àdduna ci accident boobu yi mhm. di leen ñaanal yàlla jaruñu ñaanal sax parce que ce sont des martyrs mm. euh, ay shuhada lañ maanaam ñoo xamante ni euh, koo xamante ni shahid la mooy ku dee ci dee boo xamante ni daf la bett. Hmm. moo xam accident lab ci géej wala lakk ci lakk wala euh, dugg ci teen te teyuloo ko yooyu yëpp dafa nekk kaa yoo xamante ni wala jàngoro dal la bu la bett comme ni fi Covid bi amee woon di ravager. yooyu yëpp dafa bokk ci shahid yi. di encourager tamit le ministre la euh, malik Malick Ndiaye akt boobu euh, am na solo trop nabu parce que boo seetee ñi fi moo a jaar da ngay dégg accident yoo xamante ni am na plus de vingt ou trente morts wala quinze de plus mais balaa ministre bay jóg dana nekk euh, lu yéex. Mhm. mais moom fi mu amee yàlla dogal na dem na ci lieu mhm. xool am yoo xamante ni jël na ko fa. dañ koy encourager bu baax baax en tant mhm. que ministre beneen bi ci des responsabilité am yi mu jël. yàlla na yàlla mottali daal. yaakaar li mu wax ci suba bu ñu ko toppee njort naa ni accident dana wàññeeku. Mhm. permis yi nga xamante ni c'est permis au point point ak yeneen ak yeneen yooyu moom il ñu teg ko bu ñu ko tegu rek du baax. dinañ ci ñëw loolu dafa bokk ci ponk yi ñu war a ko teg gis nga maire yi. Hmm. amul benn maire bu ñuy auditer nga mucc. Hmm. Hmm? ah xanaa ma mën ma mën ni. Mhm. Euh, ki dëkk parcelle. Jamil waaw kooku wóolu naa ko. à mm-hmm. part moom euh, à part moom amul benn maire buy mujj waxuma nag maire yi nga xamante ni falu nañ avant. Eh, kii bi weer ci deux mille vingt deux mille vingt deux la su ma kenn du ci mucc parce que xam nga doxalinu maire yi. ba ci Barthélemy Dias. ma ni kenn du mucc laa lay wax. am <laughs> ah, bul tudd yàlla tudd tur. Ah. xam naa fi nga jëm mais dama dama maas noonu gi. dëgg la xam nga tey système bi ñuy doxale mooy am amul maire buy ñëw marché yi mu jaarale ko ci yoon. ni ko sarti réew mi waxee du ko jaarale noonu damay ñëw nekk maire jël nabu teg ci suma wet mooy nabu. man waaw mooy nabu moom. mami mami jël mami bokk bu ma gën a jege sama ndeyjoor. teg ci suma wet <laughs> léegi luy marché. Mm-hmm. mami moo koy gagné. mami. Mm. Eh, papier yi muy wut. Mm. pat mais voilà. moom la moom xamul ban kii la ko benn parti politique bu mu bokk Uh-huh. apparemment il a été ci yeewi la bokk la bokk en tout cas il a été plébiscité euh, non non non am na am na fu mbokk bokk soit mu bokk taxaw waaye yaakaar wala mu bokk wala kon fësut bokk fekkee naa meeting bu mujj bi ñu ko maa ngi foofu maa ngi foofu mais nañ gëstu rek ba xam yaakaaruma ne candidat individuel bu dee ay mbokkam ngi seetaan mën nañoo réagir waaw c'est ça mën nañu wax mu kii mais hmm. loolu doy na waar mais moom dañ ko kii dafa feeñ mais ñi ci des ñu ngi ñëw kenn mucc ci ñoom léegi damay jël soxna si mu wut lu mat ñaari GIE wala ñaari association yoo xamante dana ko permettre mu mën a gañe marché yi wala day dem ba yóbbu cinq te même personne moo koy gérer mooy gagner marché yi lépp lu ñu fa teg moo koy gañe léegi bu ko gañee marché bi nekk cinq cent millions mu ñëw pàccoog maire bi maire bi jël lu ko neex li ci des mu jox ko ko maire yi ci ëpp noonu lay doxee mais demal fas Gueule Tapée ñu ngi ñu ngi jël waaw Fass Gueule Tapée ñu ngi jooy. mais Ousmane Ndoye jiite woon biñ ko wax Ousmane Ndoye ko jiite woon ki ko jiite léegi waaw Faye la sant. Hmm. ñu ngi jooy boo tendre sa micro da xam ni lii bon war nañ leen a auditer daal. Mhm. war nañ gaaw ci audit yi ñoom ñu jaar foofu. Mhm. bu ñu ciy jaar maire yëpp dañuy wàcc. te benn maire du sëqat. et on comprend kon pourquoi communes yi. pauvre à ce point. xam nga dañoo yab la la le frère de Marème Faye Sall ci Covid bi. Hmm. mais Covid bi am na commune yoo xamante ne tey ñu ngi xëy di bajantu moo moo moo leen may bës mais tey bu ñu leen contrôlé woon loxo jib ci poste wala boog loxo jib ci gémmiñ. ah ñu ah. contrôlé ah, loxo jib ci gémmiñ maire boo xamante ni tey day taxaw euh, dugg xam nga jamono yooyu président Macky Sall dafa ubbi woon buntu yëpp. concernant les sociétés comme euh, Orange euh, ak euh, banques yeeg yooyu pour maires yi bu ñu ñëwee di leen solliciter ñu mën leen a jàppale. Hmm. naka ngay gisee quelque koo xamante ni dafa dem Sonatel Sonatel jox ko vingt tonnes ceeb. Mhm. may ko ko. Hmm. mais vingt tonnes yooyu mu facturé ko maire mu facturé ko dem retiré ji ko perception. ah am na am mais am na li ma lay wax kay ay fee la. donc ñu soppi ko. dañoo yab jëkk frère Marème Faye Sall bi rek mais bu ñu ko toppoon. dana doy waar ah. donc nii ñuy régler nag nii muy régler administration ministre yeeg li jëm ci société yeeg yooyu. Mm-hmm. ak directeurs yi noonu la ñu war a régler maire yi. Mm-hmm. mais un maire boo xamante ne dañ ko fal pour cinq ans nga tabax kër goo xamante ne bu koy évaluer egg na ci cinq cent million te xam nañ li ngay fay. te maire bi weesuwul trois cent mille. bu dee maire commune yi peut-être maire Dakar un million lay fayee ko. Mm-hmm. un fonctionnaire milliardaire. quelqu'un ki pèse trois cent millions wala trois cent milliards foo koy jële dëgg dëgg la mooy ci marché yi nga wax waaw yow lu dul marché yi sax laa lay wax ñu koy nañu dugg rek ah nañu dugg nañu gën a foncer rek hmm. kenn du kenn du ŋaan sa gémmiñ coow du jib te loolu sax mooy permettre nit ñi ñu mën a xam kan mooy kan hmm. parce que bu ñu ko defulee mën nga attaquer Ousmane yóbbu ko procureur jëli ko yóbbu ko kaso un mois deux mois sénégalais yi taxaw ne deful dara bàyyi leen ko. waaye ni ñuy publier rapport yi. Hmm. nañ ko topp jusqu'au bout. ba ci chef de village bi sax wala ku mënti doon. Hmm. wala délégué de quartier bi nañ ko topp Ousmane bu mu sës. buñ ko toppee bu mu sës ba gis ni def na ñu tëj ko. waaw ah, mooy yoon. man kay damaa bëgg sax ñu tabax ay kaso yu bees am na. am na déedéet nañ dolli déedéet du tabax aja am man dafa am dogguma la yàlla bu la yàlla dog dinaa la bàyyi nga dem mhm. gis nga tëj kaso mhm. daanaka xewi na lan moo xew man euh, xam naa su ma waxee ñeen danañ ma mere <laughs> mais mos naa ci waxtaan ak ay kilifa ne mhm. gis nga dama koy jële sax ci njiitu réew yi de Senghor ba tey jii ki fi jóge bërki dem moom muy président Macky Sall Senghor dem na dootul dellu mais bu fekkoon ni président bu détourné wala mu rey ay bakkan tey dañuy préparer benn monument boo xamante ni bakkan yi ñu rey yëpp dañuy jël seen photo def ko ci monument bi mu ne fàng foo toll di ko liir. Hmm. ñu jël photo président bi def ko ca kaw ni kii moo rey ñii. les quatre-vingts personnes ñii ñoo leen rey autorité bu jóge bitim réew ñëw balaa muy ñibbi ñu dem mu dem visité ji hmm. kon rey jeex. parce que am na loo xamante ni tey boo ko defee mu ne fàng Macron du am sañ-sañu ñëw di la jox benn poste de responsabilité nga koy. nga nekk nga koy doxal du yoon. léegi kon mairie yi bu ñu luubalee. ñu jaarale leen foofu am na loo xamante na ni fàng rek. gis nga bu nee fàng sénégalais bi du coow. teg leen ci entrevue bi. nañ na ni fàng bu xam nga tey jii fàng gi bi gën a garaaw fàng gi mooy nga nangu alalam. ji nga xamante ni jël na ko moo xam mu am sous couvert wala moo xam mu am leneen lu mënti doon mais bu ñu ne lii dara du sotti te dëkk bi du dem waaw imaam li muy wax